nañ dem seetaan journal campagne Diomaye. salaam sama gars yi deuxième partie journalu campagne Bassirou Diomaye Faye nee na Kolda ci Sénégal la bokk. Kolda ci Sénégal la bokk. Kédougou ci Sénégal la bokk Kédougou bi nga xam ni président amul ba toj na ko ci Sénégal la bokk Tambacounda moom it nee na ci Sénégal la bokk ba si wax de. kunda ci senegal la sor manam kaza ma ci senegal la bok lo yaakaaroon naa ni ñep xam nañ ko mais daa mel ni am nañu ko xamut maanaam zigen sor ci senegal la bok deg na ñu ni dañu bëgg bu mu bu mu waxati pro Ousmane di wax mën ta ne ndax pro du candidat Bassirou moy candidat kon lañ bay Bassirou kon ni di wax ay bêtise pro Ousmane du candidat s'il te plaît bàyyi leen Bassirou jomay fay mom moy candidat. mu ngi xamal lu ñu xamul woon ñu fi juddoo yoroo màggee fi comme moom voilà des na tuuti njaga ñaaw mooy bokk ca Dakar wala njaga ñaaw mooy bokk fële ca. Eh, waaye yéen jëmm <laughs> waaye jëmm lu ko <laughs> bu bokkul ci Sénégal fan la war a mën a bokk yow mën nga lim quatorze régions yi te woo ci Kaolack ak. <laughs> kon da eh, wala lu ko dal kii nit la. <laughs> ci yàlla ay Macky Macky du nit makki nag lii lañu ñu dencoon woon Macky liñ ko fi mere yëpp ndeket ak xamuñu woon warul génn ah dañoo rey ay nit warul génn bu génne dina falu sérieusement nag je dis sérieusement sans ñu bëri jomaay da leen décevoir benn ñu bëri seen yaakaar dafa commencé tas ñu bëri xam nañ ni sonko du jomaay jomaay du sonk parce que sonko moom làmmiñ bee dafa ratax làmmiñam dàmmul ci poosam moom moom bu doon moom normalement moo nekkoon candidat bi haa kon du demee nii.